tay ñu ngi fi ci Yoff ñew ci euh, délégation bu gouvernement du Sénégal Amné, président de la République son excellence Macky Sall mo ñu yoni ñu fi gouvernement bi yépp ak premier ministre Amadou Ba ànd fi ak euh, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Abdoulaye Diouf Sarr ànd fi ak le préfet du département de Dakar ànd fi ak maire commune Yoff ñu ñew euh, représenter fi gouvernement du Sénégal ñu ñew nak ci bës bu am solo boo xam ne tey tele li mooy jeextalu koor gi muy bésu korité koor nag ku ko tudd jàmm tudd yërmande te loolu moo feeñaat tey ci kàddu yi nga xam ne moom lañ dégg ci imam Libaas Laay mooy woote Sénégal ne jàmm war na fi am war nañ fexe ba stabilité am fi ndax loolu fu mu amul développement mënu fa am donc message bi liñ ciy tënk mooy cet appel à la paix euh, à l'unité nationale et à la concorde donc mooy woote bi nga xam ne daal na Sénégal yëpp booloo nekk benn mais aussi réew mi ñu fexe ba jàmm sax fii ndax fu jàmm amul leneen du fa am mu nekk message boo xam ne aussi président de la république euh, adresse bu muy def à moom lay jiital ndax jàmm mooy jiitu mooy mujj lépp. Mm-hmm. wax na aussi ci wàllu guerre mu nekk loo xam ne message la bu jëm ci askan bi yëpp jëm aussi ci àdduna bi mu nekk loo xam ne ni taxawaay la boo xam ne ni aussi état du Sénégal am na ay jéego yoo xam ne mu ngi ko ciy def mais loolu yëpp message la boo xam ne nii day yokku ñaax. ci wàllu liggéey bi ñu fexe ba segment société bi yëpp ñu am ci taxawaay ba li nga xam ne ni mooy guerre ñu mun ko xeex ndax loolu mooy ambition wu président de la république loolu aussi mooy vision gërëm ki nga xam ni que ni moo tax sama wet mooy le ministre mi nga xam te ni tey moom lañu fi yebal moo ànd ak délégation gouvernement bi nga xam te ni ñoo fi teewaloon kilifa réew mi pour ànd ak nun ci julli gi nga xam te ni que ni julli gu mémorable la mën nañ ko wax ndax soo déggee xutba xalif euh, Maodo Bass ren sur la corruption nga xam te ni que ni lu am solo la ndax suñu xoolee li nga xam te ni que ni waxuma sax li xew ci réew mi waaye li xew ci àddina bi nga xam te ni que ni corruption yàq na ci lu bari. kon nag sëriñ bi wax na ci loo am solo loo xam te ni que ni ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp tey jii defe naa ne ku dellu sa kër di nga am loo yóbbaale nga xam te ni que ni li yàlla wax ci corruption wax ko ci li nga xam te ni que ni suñ ko gisee ci àddina. wala mu egsi ci àddina nañu xam ne ñu ngi ci mujj jamono kon nag loolu defe naa ne tey jii ñëpp jébbale nañ ko tey jii e, la ca desit mooy li mu wax it mooy ñaan jàmm ci réew mi defe naa contexte bi ñu toll defe naa ni que ni ñëpp ñoo war a ñaan e, ñaan nag limu mu ko waxee sànq rek nañu ubbi bunt yi ñu war a ñaan yëpp ñu war a e, toppatoo ñaan ñu toppatoo ko ñu war a déglu ñaan ñu déglu ñaan waaye ñu war a it jégale it ñu jégale ndax loolu yëpp dafa am solo ci am réew kon loolu defe naa ni que ni yóbbal boobu yóbbal bu am solo la nañu moytu corruption muy ger nañu wét ñun ñëpp nañu cultiver la paix muy jàmm ci réew mi nga xam te ni que ni jàmm rek moo fi war a sax ndax ku xool ni muy doxe su jàmm amul rek lu bari bari mën na yàqu kon nag jàmm jooju ñun ñëpp dañ ko war a cultiver muy état muy ñeneen ak ñeneen ak ñëpp képp ku nekk ci Sénégal rek war nga cultiver si jàmm jooju kon nag loolu defe naa ne lu am solo la monsieur le ministre kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax ak ñi nga àndal